muy lu mu faral di def saa su weer koor ñëwee soxna mam say mbàkke togg ay ndogu yóbbu ko ci ay daara ci dëkk bu sell bi di Tuubaa jëf ji jur mbégte lu rëy ci ñu nga xam ni ñoom ñoo yore yooyu daara waaye moom bi mu ci ñëwee rek la gën a màggalaat birab bi ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa ji mu doon ndax ñaari ni rek a dox diggam ak Sëriñ Tuubaa béréb bi nag li fi yeewoo ci mbooloo ëpp na lu mat ñetti téeméeri dongo ñuy jàng alxuraan ay kaamil di di di mokkal alxuraan di ko tari ci anam yu ne soxna si nag doon jëmm joo xam ne muy soxna maam say mbàkke mii moom siñ seex say doon koo xam ne bët bu set mu ngi saytu daara ji di fi ñëw te yoonam wii du wii yoon dong la dafay ñëw ñëwati fi ñëwati fi tey nag daa jot ci ñu wax ki mu doon ndax ku ne jaajëf ngay wut ña doon takk ay laxasaay di takk ay der di fekk Sëriñ Tuubaa ci yéen jool fu ne jaajëfi sëriñ bi rek lan doon wut moom mi nag dafa indi ci daara ji ay taraanga yoo xam ne di ko fi def ba mënatuñu koo nëbb nu toog nag fësal ko ngir ñëpp xam ne jëf na jëf ju baax ci daara ji gis nga bool yi mu def nii façon mu lekk wu ne ngi ci mburu yi café yi te noonu la koy baaxoo di def ci jamono yu di ko indi ci daara ji dañ ne sot sax ci kaat kaata sax ci ci sot la bokk kon seega moom mu ngi nu féete fii nu féete wax dëgg nag danoo defal lu nu kenn defalut ku nu defal lu nu kenn defalut nag ñu waxalal lu nu lu nu waxalut kenn gox bi bàyyi nañ la xel daara ji bàyyi nan la xel mbooleem njaboot sëñ maa bi gépp bàyyi nan la xel. comme tey teranga bi ngeen indi fii nii waa bëgg nañ loolu nag waa gis ne tey tey li ngeen indi fii nii si daara ji mooy daara alxuraan bi boo xamante ni daanaka ñëpp fa lañ uti daal te fi ñu ñëpp fa lañ fi la ñu sàkku si xam-xam te yéen tamit ngeen indi ñu mbégteel bii nii boo xamante ni kenn xamul lu mu toll waaye yal na la yàlla fay ci li ngeen ci li ngeen def tey waaw ku ku indi tamit lii tamit yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla defal lépp lu mu bëgg ci biir àdduna ak àdduna ak yàlla akira yal na ko yàlla defal loolu incha bu soobee bu soobee yàlla si barka si seen ak sew xadim soxna maam say Mbàkke di wax ne jëf ji jubluwu ci dul social di jàppal ma jàpp dimbali ñi nga xam ne seen loxo taxul mu jot seen ginnaaw. social bi de euh, maa jógoon tey seet daara alxuraan yi ay benn benn daar yóbbu leen ay berndeel ndax kenn ko xam ne ku ne koor berndeel tax ñu koor ku ne koor nga seet ñi ko soxla ay néew yu doole di jàngatu alxuraan nga yóbbu leen ay bende sàkku seen ñaan yàlla def ci réew mi jàmm bàyyi suñu kilifa diine ko xamante social lañ ci dox boo seetloo fan ci ginnaaw rek am na yu bari yu yëngatu social di ko jàppale néegu doole yi ndax euh, comme suñu kilifa moom la social nan jege askan wi xam seen li seen li jafe-jafe jàppale néew doole yi. lolo tax ñu sukkandiku ci loolu jogon tay ji set daara alquran yi yóbbu leen ay bernde ngir ñi ñaan suñu ci dina yalla bàyyi leen fi ñaan suñu ci tamit yalla defal ko jamm ci rew mi ba li mu séebu ci rew mi yalla may ko lu ko mëna agalé katan ak jamm ci senegal reyna ay nak ah dogay ben yu am solo yu daara alquran yi ndax ku ne ko rek na alquran ku ne tuubaa tamit ne daal di alxuraan ku nekk suñu sooy bu laa jógee tamit ne daal di alxuraan ndax xam nañu ku ñu xam ñu waa ak suñu sooy bu alxuraan rek moo nu ñor ndax suñu kilifa gënu meññ muy sëriñ sooy bu yàlla yàlla yokk ay leeram alxuraan rek moo ko ñoroon kon na ko mel noonu boo soq ko ci moom tey ji du weeru koor ni mu fonkoon weeru koor ak ni mu fonkoon joxe aw ñam ci weeru koor ah, boo ñoom mi jógee ci moom rek boo xalaatee xam ne loolu war na war na la ma jógoon tey jii def ko di sàkku ñaan ci ñoom nag kii nga xam ne responsable politique la ci biir APR di wax ne président Macky Sall moom du def lu dul jaajëfal ko ci jéego yi muy def ci jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi. te moom it eh, di ñaanal suñu président bu baax yàlla may ko jàmm dafa réew mi jàmm di ko sant moom bu baax di gën a fedd sama taxawaay sama diggante ak moom di gën ko jàpp na ma sëg su moom mi ngi so soññ ñu jege askan wi jàppale leen ci social tamit kon loolu la bëgg moom it naa ko ci gën a jàppale. gën ko cee doole lépp loo ndax ndax président moom bu sañoon ñëpp liggéey bu sañoon ñëpp am moom liy mébatu senegal mooy xale yëpp am métier senegal jëm kanam ndax boo xoolee bi fi toogee li fi def ak li fi réussir ci président bu tam doon xale jafe na waaye bëgg na yóbbu senegal foo xam ne daal benn Sénégal lay doon tax nag wane na ko kon nag moom ñu koy sant di ñaan yàlla may ko ba mébétam yëpp àgg ndax projet yi mu def rek tey ji projet yëpp ah yaan yàlla moti ay ay ay mébétam waa hmm. ba àggee benn xale boo xam ne taxawal doomati jigéen tamit jàppale na leen ndax boo xam ne ñu jigéen ni mu defee social ak ni ñuy jàppale bis président mosu koo def kon nag moom ñu ngi koy sant bu baax ci loolu tamit nag ndax président boo xam ne nii moom réewam rek moo ko ñor président lu wax lu wax ji bari ba réewam moo ko ñor parce que Sénégal doon beneen Sénégal dana xam ngeen ne gis ngeen Sénégal fii mu ko fekk ak fi mu ko yóbbu bi mu ciy jot metti woon na te lu coow li bari bari bari mi ngi liggéey ko xool xam ne mi ngi liggéey ku gëm tam xam nga président mi ngi liggéey kon nag moom it dañ koy sant di gën ci wetam di ko jàppale di ko ñaanal di ñaan suñu kilifa di ñaanal ko yàlla mot liggéey mi yëpp di sant sama waajur góor sëriñ si Ahmadou Mbacke son yëpp ndax jàppale na ma lool nag jege na ma lool kon nag dama ko sant di ko ñaanal ndax di ma ko demee di ko wax di waxtaan bi ko tàggu rek dama cee gën a encouragé xiir taalam dugal ci mm. wala mooy dinaa ko sant bu baax di ko ñaanal di ñaan tamit xarit Sénégal di murit mm. di ko sant ndax dañ jàmm suñ Tuubaa tax ñu am jàmm mm-hmm. waaye suñ Muntaxaa yokk jàmm Sénégal mm-hmm. yokku na ko lool mm-hmm. ndax boo gisee ni mu taxawee ci réew mi xam ne yokku na jàmm ji kon ñun ñëpp war a ne suñ Muntaxaa yàlla na fi yàgg te wér ñu koy sant di ko ñaanal yàlla may ko fan lu gudd ak wér